ci mooy dox ci diggante Modou ak Ama Balde ndax ki nekk sama gauche moo ngi nekk ci keppaaru Ama Balde mu nekk Boy Jules defe naa ne xam ngeen ko ci làmb ndax euh, ndaanaan la def na lu ne ci làmb su ma ñëwee sama doar nag euh, di wax ne Ameth Lo ki nga xamante ni mooy jabaatu Modou ñu ci bari sax dañ naan boo ko gisee gis nga Modou Lo ba tax na tey ñoom ñaar laa fi dalal bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb bëgg waxtaan ak ñoom seen carrière ndax defe naa ne ñoom ñaar nekk na ñaari xale yoo xamante ni palmarès su mais nekk na ñaari xale yoo xamante ni bëggante nañu ndax su ma su ma bu ma waxtaanee ki nga xamante ni mooy Boy Jules nee na ma bëgg naa ko ma waxtaan ki nga xamante ni mooy Ameth mu ne ma lu ma am moomu ko gënal defe naa ni Modou Lo ak Ama Baldé jarul xëy Modou Lo ak boobu dañ ko war a dekkilaat bii bu ñu ko ci jëlee dugg ko ci avant première bi lay nekk wala avant boobu sax bu ngeen mënee bëree tamit ndax ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi seen entraînement bàyyiwuñ benn yoon ndax ay xale lañ làmb rek lañ yaakaar làmb dong leen def seen métier ma bàyyi nga xamante ni mooy Boy Jules mu nuyoo ñu continuer Boy Jules nuyu naa la waaw Ousseyn ñu ngi lay fay di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di sant ñëpp di sant sama Serigne Serigne Cheikh Fall Mbawar di ko ziar bu baax di ko ñaanal di ñaanal suñu Mountakha Mbacké na fi yàgg te wér ci barke Seydina Mohamed di bëggee ñi ma àndal ku ci mel ni Adama Lo Seri Jooja Mor Fall sama doomu nday sama doom comprendre nga di ziar champion bi Petit Lo ak gars yi fi nekk yëpp ab Seri Beuz xam nga gars yëpp maa leen di bëggee bu baax di la ziar di ziar ñëpp di sant marème bu Serigne Fallou di ko ñaanal jàmm di ko naan waaw yow ca kanam rek ci barke Serigne Fallou. di bëgg ñëpp sa kii wi nii fu mu nga. fii de Assane fi jaar Assane Baye Fall Assane Tedouaz koo xam ne nii gaan lu nekk lay def ci man barke Serigne Touba moo def nii nga ma laalal Baye Fall bi nii comme que yow nga. moo ma jaar fii rek di bëgg waale waa Pikine yëpp nag waaw di ñaanal yàlla Ama Baldé yàlla may ko ndam bu gën ci moom ci barki Seydina Mohamed di bëggee waa marché zinc bu baax a baax a baax képp koo xam ne fan su Bozil moo ngi fa rek waaw maa ngi leen di bëggee Djily Diouf comme ni ma ko waxee woon léegi kon Assane bi ma tudd. léegi nuyoo nuyoo ngay def après di nga tàgg. bëggee waat <laughs> rek <laughs> eh, euh, ngi lay ziar di la nuyu di la bëggee bu baax. waaw onze billah min station bismillah rahmaan rahim ginnaaw ma sant yàlla julli si nant bi di sant sama ñaari waajur di ñi fi nekk nii ñëpp di la nuyu di nuyu mbër mi topp. mbër mi xamoo ko. tey ajal mi koy bu baax. di suñu waa kër mu jige waa parcelle di ko delee sa maam ba ci xam ba ci Médoune quoi ku fa gën a ndaw di nuyu sama papa bu baax di nuyu sama yaay di nuyu waa Tëngéej yëpp ak waa Ñoojoor yëpp. bu bëggee sama gars yi ñoom papa ñoom saa ñoom yu xam sama gars yi may àndal yëpp. ñoom Thierno ci bëri xaw a nonchalant Petit Lo dafa xaw a yàppaat Petit du wax lan la. ah ñoom ñoo gis loolu rek xam nga ku nekk nit bu loo xool ci moom rek loolu nga gis ci moom mais su ma duggee ci géew bi dinañ xam ndax damaa nonchalant wala nonchalant ma. ay ah, yéen seetaan ngeen samay combat. boo duggee ci géew bi band ngay nekk. non du 15 euros bànn seex mais li ma war foofu laay def rek li ma fa indi loolu laay def rek mooy loolu. gis ngeen li ma war foofu laay def moom mi dama gis dama ko dégg léegi mu mu nuyu Ama Baldé di ko ñaanal ndam doo ñaanal Modou Lo ndam. ah mais a doon ñëw mais ah di nuyu sama papa Modou Lo au passage di ko ñaanal yàlla defal ko sutura ak xéwal ah ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla mooy ko ndam quoi yàlla doole. ñaanal wér ba pare daa feebar de. <laughs> mu ne <laughs> loolu de xanaa information la nee nga ñaanal ko wér ndax Modou dafa feebar. ñaanal ko wér xawuñu xawuñu feebar de ah ñu ngi koy ñaanal bu baax ñu ngi ñaanal yàlla defal ko sutura ak xéwal dooleel ko kàttanal ko quoi. mais balaa ma ñëw sax si yéen seen seen diggante parce que euh, defe naa ni woo naa leen fii parce que combat la woo naa leen fii parce que Modou Lo ak Ama Baldé dañoo war a bëre nga doon dégg Ama di wax dangeen ko dangeen ragal a jàkkaarloo ak moom. ñemewu leen jàkkaarloo ak moom bi nga ko déggee wax ji lan la def. ci kaw nga kuy wax kuy wax Modou moom di wax ci moom dara di jëmale ci ay ragal kooku genre da wala nga wax lan neex mais moom muy jëflante moom. moo ne xam Modou xam ko bu baax. du ay question de ragal ay kii non laa la wax de Modou. <laughs> sax bu kenn warul wax sax tur Modou di wax Modou di ba pare di ci ay wax waxu ragal quoi. du yoon de. non non. kon mais xoolal rek yéen kon Ama Baldé dafa yem Moodu. yow yaa gisee sa bopp rek. non man waxuma li Ama Baldé li wax kay laa lay laaj ndax Ama moom mi ne Moodu dafa ragal kay moom xaw a jaaxal. dafa ragal dafa ragal ak ragalul. waaw ah, le 13 mars dimanche bi di ñëw bis topp bis toppaat la. yàggatul kon yow calcul yow jàpp nga bési de. ah bu nee le 13 mars sax day sori dimanche bi di ñëw bis topp bis toppaat. bis toppaat ci lay gën a jege de <laughs> gis ngeen mbokk yi doon lay demee ci jàmmaarloo mais Boy Jules. Boy Jules damay gis say combat booba bi depuis bi nga bëree maag moom ba léegi affaire yi dafa xaw a dafa xaw a kii sa côté bi nga jëlee maam Mor ñu ci bàyyi nee nañu woowuñ jël maam Mor la moo dugaloon ci maam nga def ay ay tegle say victoire nekk ci palier bu neex jékki-jékki jël maam Mor. waaw waaw waaw làmb micro moom làmb la rek. Mhm. làmb moom fi nga war a jaar rek tey jii lépp loo gis si àdduna destin la comprendre nga ba ci toogaay bi ñu toog ni kenn foogu ko woon. dëgg la lépp rek loo gis destin la ñun xamuñu woon bi ñu dugg ci làmb xamuñu woon yan adversaire la ñu war a bëreel. Mhm. comprendre nga tey dina la jox mbër ba bañ ne suba la combat bi sax combat boobu yàqu kon tey ji damaa jàpp ne su ma yoon la woon rek comme ni ma koy waxee amaana suñu borom moo ko may ndam waaw kon la ma daan wax ne laa koy wax di ko ñaanal mu jikkoo waaw di ñaan yàlla heure bu ma amee tey combat sunu borom defal ma ndam ci barke Serigne Touba yee noonu la demee. mais nga jógee ci sa affaire xaw a yéex tuuti est que defe naa ne bëriwaat nga fi de. naa fi bëriwaat naa fi ak Siteu bu saalum perte waaw teewul ma nekk ci mbapat yeeg affaire yooyu noonu. lu la ñàkk loo seen bàyyi tuuti. Ah. waaw liggéey nañ li war a liggéey lépp. waaw mais li ñu ñaaxuloo moom ko def nañ ci fulla def ci xaalis bu mat sëkk. ñu si bàyyi na nag euh, doole ji xaw a des te adversaire yi ngay jël. Hmm. ñu lay daan duñ say morom ci làmb. waaw non xam nga tey jii boo ñëwee ci làmb say moroom daw la nooy def. say morom nag mu laa jël no bari nañ bari nañ bari nañ ci làmb yàlla xam na ko tey jii koo ci tuddal Boy Jules rek nag Boy Jules nag noo fi toll. wala non du du tolluwaay ba booy di la daw. du toll du du tolluwaay xam nga tey jii safara kenn bëggu faa dem. déedéet waaw noonu la demee nag. loolu mooy tontu bi safara kenn bëggu faa dem <laughs> maa ngi nuyu commando déwar yu toog ba ci yàgg bu yàlla dafa woon daal immeuble kaw ñëpp ñu dee. mu jeex tàkk. yomb quoi. <laughs> man ko <laughs> mais damaa gis kii kii dama ko fi andi mais defe naa ne kii moom boo ko ci ñu lay daw moom. waaw non loolu moom la. conseillé mais man mais man li ma ci gën a jaaxal mooy bi nga ñëwee ba léegi. si guwoo xool ko sànq ba léegi yaa ngi waxtaan booloo woo ci sa waxtaan. nuyu ko kafu leen ku ci nekk waa ji ngay wax waa ji. waaw ah, non du kaddu waa man tey jii bi may woo sax di ma wax kii néew ma dama ko bëgg parce que ñu ngi doon wax ci yeneen adversaire waaw man na nga ne ma Petit rek man na dinaa ñëw. du kaddu ne bëgg a bëri moom moo tax wala dara comprendre nga mais du loolu moom champion Mhm. ndaanaan la parce que dañuy daje ci àll bi. ah a ah, dañuy daje ci àll bi non mosuñoo laale dañuy daje ci àll bi comprendre nga loolu la mais champion la dañ koy bëggee du cadre dara dara newu suñu diggante amul lenn lu ci nekk ah. noonu la demee. mais mais mais bëgg nga bëri moom. non làmb moom bañu ma kenn. bañu ma kenn bëri na ak ñoom fuy bu ñu toogee nii ak ki ñu bëgg wala boog. ñi nga xam ne dañuy dañuy sama nawle la sama nawle la du ma ko bañ li ko yàlla bindee sàkkee ko ko ci aras man noonu lañ ma bindee sàkkee moo ko ci aras kon amul dara loo xam ne dama ko xee xeebee comprendre nga man du ma kenn man Baay Faal koo xam ne làmb boole na ak moom barki maam Cheikh Rafal damay bëre ak moom ndax gars yi ñu ngi sama ginnaaw man xamal la laa am zil yaag diw yéenay bëre aadama loo xam ne li may wax moom la ñëpp di woo yaag zil diw yéenay jeex na ma nekk ci li ma a nekk ah. ndax chaque maa ngi ci entraînement yi ngi ci àll bi di popat lool la su ma ñëwee ci yow yow yow yow benn combat nga def daan jël wu rëy doo ko top 5. Mhm. Mhm. ñu naan booy bi jabaatu Modou bi boo ko gisee gis Modou ni muy waxee ba ci ngemb li ba ci taali mais rek booy nga fuuy am benn combat daan jël bu rëy. Oh, commencé ah. Oh, non même pas fuuyu ma sax. commencé xam nga di kii après jël yaakaar naa Ameth Lagos sa diggante ak Ameth Lagos defe naa ne benn combat nga def am benn victoire deuxième combat bi nga am. defee Ameth Lagos lan moo nekkoon problème bi da nga ñëwoon xeeb ko. wala du question rek xeeb sax mais genre xam nga de jeunesse rek quoi xam nga. waaw mooy fougue de jeunesse parce que da nga ñëw yëg sa du question rek xeeb mais xam nga am naa combat ñu defal ma lu ñu war a lépp inscrire ma xaalis ne ma demal lu ñuy defal mbër rek ñu defal ma ko quoi ndax man wax dëgg sama préparation ma. mais li am ni ba euh, yombul ci mbër mu ndaw am ko de. non loolu sax mbëri nday am nañ lépp mbëri nday am nañ lépp du dara man ma jàpp naa ne genre eh, man maa ko mën quoi maa ko doole eh, mu ñëwee loolu ci géew bi te waru moon ñëwee loolu quoi soo gisee combat bi matul sax. ëpp doole 30 secondes ah xoolal yow Gisèle xoolal. non déet man maa ma doole man ma la wax maa ko ëpp doole mun ma la wax. non dama sax ba mu ñëwee jour ngi dafa gaaw dañ koy forcer doole affaire yooyu. waaw waaw waaw alors que demeewul noonu quoi man damay entraîner logique damay entraîner normal balaa may ñëw fii wallaahi entraînement laa jógee bi ma woowee sànq nee naa la maa ngi entraînement. damay entraîner logique quoi normal nga ñëw. andi fukk de jeunesse fukk de jeunesse ñëpp ne ma teyal yaa ko mën yot ko ba jàpp ko nga daan ko. ma nekk mm-hmm. kii du ko yot jàpp ko dama koy duma doo ko daan ma wax loolu sama xel. waaw ma def loolu sama xel quoi. waaw arbitre mënatul sax 30 secondes dama ko attaqué mu arrière mu rëbb kaa daal. nga daan waaw suñu yaram yi laa ma daan waaw. mais tamit jëlee naa ci lan nga ci jàngee. jaa naa ci lu bari ndax seeraan nga sama combat. parce que naa ne bi nga bëri premier combat daan promoteur dañ la songandoo. Ah, waaw sama premier combat bëri ma ko 30 secondes ma daan sama deuxième combat tamit matul sax 30 ah, man man gisuma que ni damaa yokk poids man damay entraîné normal naturel normal eh, teg ci yoon quoi ni ma lii ngay def ak lii may def loolu bi boo xoolee sama deuxième combat bi ak troisième na am na différence quoi. am na différence waaw. Eh, attaqué naa matul sax sax mais. dem naa ak dal quoi. la daloon fee ngay bañ mu dalaat mu dalaat ma fii te di ñaan yàlla defal ñu sutural li des rek xam du ma ne ma dalaat mais du gaaw quoi. Mhm. gis ngeen dina ma dina dina ma dalaat mais du gaaw moom tamit mu nekk xale boo xamante ni saa boo ko woowee wala loo ko wax lu ne danaan la xaama woo sama papa xaa ba nangam mais euh, sa digganteek euh, Boy Jules parce que defe naa moo la jiitu ci làmb moo lëpp ay combat mais sa diggante ak Boy Jules làmb du ko daax. waaw moom jiitu ci làmb moom mooy. doon laaj ñeneen ay ay ay ay booy bi dëkk Géejawaay. kenn de man du ma laaj mbër moom man wax dëgg du ma laaj kenn. doo laaj mais booy woo ko laaj. waaw waaw booy boobu mu woo ko laaj Thiat Daouda Fall moom. Thiat Daouda Fall moom moo la raw bu baax a baax. waaw na ma raw ci làmb nii ay morom lañ ñun ñëpp ay morom lañ amaana njëkk a bëre day am quoi xam nga ñoom ñëpp mën nañ ma njëkk bëre mais man ak ñoom ay morom lañ ci làmb te kenn ëpp ma coow ci làmb aussi Mhm. ñoom ñëpp kenn ëpp mu sama morom yi nekk ci làmb yi amul kenn. ëpp coow ci làmb non non mun ma ëpp coow ci làmb sax. mooy jël ki ëpp la coow ci làmb. waaw ah, na jël lépp ñun suñu yoon ñoo ko fay def. suñu boppam non déedéet man waxuma waxuma na jël de man fii kenn mayewu fi abale wuñ fi dénkaane wuñ fi. non fi amul ah, man xam man man tamit man ñëw ma fi pour xëccoo ñëw ma fi pour jël lépp. ñëw ma fi pour waaw non man kay ñëw ma fi comme lu mu ne na jël lépp man ñëw ma fi pour werante wala pour. mais bu ngeen bu ngeen bu ko taxawoon nga bëgg a jël lépp waaw non mais. fi kenn ñëw fi kenn ñëw fi pour werante comprendre nga kii man du ma moromam ci làmb pour ñu waxoo. mais du du sama morom ci làmb. waaw déggoo li ma la wax moom kese ci géew dinañ xam ndax sama morom. déggoo li ma la wax barki ma nag mais nag man su ma. su ma déggoo li fi mais hmm. su ma taxee nga toog fi tamit. yaa moom laa bëgg ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen. déggoo déggoo lépp loo xam ne suñu borom làmb làmb bi ñu ci dindee coow la làmb yàqu. ay dama aw ma lu may wax ak moom damay bàyyi ba bés ba. yàq man suma làmb man xamalal mooy tax ma jaay suma làmb maanaam tey jii nii ñu jox ma avance lamb jooju dama koy publicité dama koy jaay ba mu neex. mais dégg nga li booy da laa teel a ñeme. nee na li ngay wax fii nga koy ko wax. waaw non man moom non dafa ne du sama morom ci làmb. ma ne la bu ñu mu ne a bëri moomu ay combat mais bu ñu duggoon ci géej loolu lépp du feeñ njëkk a bëri du feeñ ëpp ay combat du feeñ. mu toll dafa mel ni sañ-sañ ak fit. non du question de sañ-sañ ay la wax. waaw ñu euh, du feeñ. booy yi di nekk fii ci làmb ji di cali cali yëpp di wax maa leen gën a buyu fuuf nga leen a sañ fuuf barki maam Cheikh Rafal ëpp leen kàttan duma sax seen moroom. ci te ku ma ci wax jaaral nii barki maam Cheikh Rafal la ngay jaar noonu wax ji nag mën nañoo toog ci tele ku ci nekk dëggal sa bopp. du man ak moom sax ñeenti yoon. kóob doole. maa fuuf. moo ne moo doole fii nii bu ko neexee mu toog ni moo doole loolu moom la ndax. maam moom nga koy bàyyi. mais attends non wax la mu na wax rek quoi. ma wax kat man du ma wax kat doole. na jël yaa xamal que ne buñ duggoon ci géew buñ nekkoon ci géew mu nag moom kese. du ëpp doole du feeñ du lépp du feeñ ku mën sa morom rek. maam Serap du kàddu dara te ay booy yu loolu doy dem waxu booy undu undu man loolu lépp ñor ma ne ma xamala moom ñor ma damay entraîné te su ma amee combat su ma diggee ci géew bi damay def moo xam. waaw kay da ngay xam sa bopp. sama bopp laa xam sama bopp laa xam na. man tey jii déggoo li ma la wax. kii ma fii di wax. patron papa moo tax ma toog fii di wax. man tamit yow taxul ma toog fii di wax. barki maam Serafal papa moo tax ma toog fii di wax. su ma nee papa moo loo papaam la. waaw. voilà moo tax ma sol fi ne voilà dama bëgg mu leer rek xam nga nga xaw a doy waar <laughs> comprendre nga moo tax may wax barke alxuraanu karim su ma sañoo Ama Baldé du si def benn signature ak Modou Lo man maa ñëw billaahi wallaahi mais xam nga li ngay wax nii xam nga ne mu eh. nekk wax ju yàqu ngay wax ay su ma sañoon Ama Baldé loolu wax ju yàqu nga wax nga naan ay Modou Lo yow yow taxaw fii nga wax ak yow xam Modou Lo taxaw fii di wax ay Modou Lo <laughs> yow barke maam seera baax waaw kii nii. Mhm. war na Serigne Touba billaahi wallaahi xam na ne sax du ma moroom. billaahi wallaahi ñëwee oh. barki Serigne Touba Mbacke. léegi attends léegi yow taxaw. musuma xam na bu baax. li may wax xam na ko bu baax yaa ngi ko énervé de. déggoo li ma la wax waaye déggoo li Ama Baldé wax ma ci làmb la nii quoi. déggoo li ma la wax bu li ma la wax mosuma ko ñeme moom la moo tax léegi. déggoo li ma la wax sa lewet gi nga lewet moo tax man li may wax man li ma la wax ñun ay góor yàlla lañ ñun ay góor yàlla ñun ku ñu ñeme xam nañ te yow xam nit macha allah ku ñu ñeme xam nañ ku ñu ragal xam nañ Hmm? ni ma waxee nii non ñemoo. dégg li ma la wax kii nii déggoo barki maam Serap Fall bu ñu ko doon limal ay kombaa du mës a toog. laaj la boole boole ma ci. te du ko mësa def lii moo ñu boole ndax yow xaw ma nu ma lay def mbokk waalo waalo ko léegi moom léegi yow la moo tax nga wax loolu. li ma tax ma wax loolu man xam naa ko de yaa ma koy laaj na ñemewuloo na même bu ngeen bu ah, ay nit bu ñu rombantee ah, sax léegi moom fa la technique genre moom daf ma ëpp doole. ci tegukaay bi. ci tegukaay bi. mais mais ci waaw léegi tegukaay bi na ko teg fii. ci tegukaay a ñeme ma ko. dafa ëpp doole booy booy. moo tax ñu toog fii man ak yow di wax. waaw man yow rek amoo fitu tax ak man di wax. barki ah, Serigne Touba Mbacke déggoo li ma la wax eh, déggoo fitu ne ma Boy Jules nangamu yow amoo fit bi kii moo tax tey nga ñëw nuyu ma barki maam Cheikh Rafal wóor na Serigne Touba Mbacke waaw dama lay expliquer rek dama lay expliquer rek billaahi wallaahi wa taalaahi du sa morom ci lenn parce que am soxla ci yow bay dajeeg yow loolu yow la concerné boo amee soxla ci man. yow la concerné yow doo am soxla ci man ah, xam amoo lenn amoo benn yaakaar boo xam ne ni mën nga ko am ci man daa comme ban yaakaar ci lépp ci lépp. li may wax xam naa ko su musul am gëm-gëm bi sax laa wax nii. barki alxuraan yow booy yow da ngaa bëri wax. ma wax booy man du ma sa morom nga naa ma booy. man nga bëri yow kii moo tax tey jii barki maam ma ay da eh, kii moo tax ndax moom moom woo émission bu ñëw moom moo ma da nga wax man ak yow man ak yow déggoo ma la man wax te barki yow ma ay ñeme woo ma man ak yow ñu toog man ak yow ñu daje maa ak yow barki Serigne Saliou Mbacke boo demee da ngaa bëri wax sa bëñ yi xam nga benn na yëpp ay dañandoo. billaay wallaay. mais nag day xeex. non na def <laughs> wax waa kii dafa wax. ndax mu toog fii mais nag waa non taxawal ma. booy day làmb ñun mosu ñoo ñëw ci moom mosu ñoo di wax la patron war a wax. patron. da la war a tóojal li ma kii maa ngi moom mosuñ am musuñ croisé musuñ am benn problème bu ñu rombee. jàmm leen taxaw non taxaw ma non xaw ma gis mu ko de bu ñu dajee ci làmb rombante lañ am ba pare mu toog fii naan man ñeme moo ko. wala bu ma dajeeg moom aw ma lu mu wax. booy mais bu ma dajeeg moom aw soxla. ci moom yéen waa déggoo ma la wax waa parcelle parcelle yëpp laay wax est-ce que amay dégg ñëw. waaw di bëgg wala suñu papa Zil Bale waaw di ko siyaaraale bu baax a baax a baax waaw xam nga di bëggee ñëpp ñoo xam ne ñoo ngi di leen siyaar bu baax a baax comprendre nga non non c'est que booy bi xam nga bu commencé dépassé quoi. non mais kii dafa bëri wax xam nga ay wax mbër lay wax. ay toog fii boo ko léegi boo ko léegi déggoo sante mu na am ay ko il faut nga ñam ko bu ah, bari mu toog fii naan ay ñame moo ko wala dara xam nga kii waxu mbër lay wax waxu mbër di wax lu ko neex. booy yabuñu ma booy yabuñu ma de parce que borom Touba booy yabuñu ma dañuy wax rek booy bu ci nekk di wax bu ñu dajee entraînement doo wax pare yow nag waa dafa mel ni da ngeen xaw a singilé ndax déggoon naa sa combat Clémenceau. daa daw daa daw. Clémenceau de booy bee la jël. gënum Fass Mbao gi Baba Diakhate. <laughs> waaw <laughs> di leen ñaanal ñoom ñaar ba bés ba yaakaar naa dimanche la combat bu neex loolu moom xam tey jii nii. Mm. ama làmb ay ay vingt cinq combat wala ay un laa def yooyu amatul ci làmb comprendre nga bu baax. Mm. mais man li may wax xam naa ko bu baax. boobu ba léegi li tax bëreew ma mbër yi jël sama avance delloo ko dañoo bëri dañuy ñëw ñu bëre comprendre nga ay caatu daaro faal ay damay xol làmb ji dem sëriñ bi na baaxul nga delloo. ñu gëm boo Jules ma jaaxal caatu daaro ak booy yi ñu fi lim yi nga xamante ne nii bëri képp moo la ñor ñu lay man man sama sama bëgg su ma seeyoon la bu ma seeyoon Mor Kankang fii Mor ndax làmb ju neex la du cadre bëgg a bëri moom du turo nag ah non amul ma benn avantage daa daan boo yëmbal ma daan boo yëmbal est que yaa comprendre. te hmm. eh, man damay dumawaate de. damay damay damay mag de. kii kii seetaan. naa combat am bi passé. noonu nga ci yëpp sax seetaan naa ko waaw. waaw non ndaanaan la ba ci combat moo ko amee Lac dama ko wax man leen kii day daan te confiance excès de confiance moo koy daan. combat moo amel ak rose bi dama ko ko wax mais mënu ko yàlla xam na ko champion ko koy nangul man du ma bëri ku dul champion wala may toog di wax ak koo xam ne du champion mais li ma bëgg a xam mooy euh, mu nekk ndaanaan nga waxal ko qualité yëpp ba pare nga ne ñemewuma man. xanaa kon yow moom. Euh, xam loolu loolu waxu mbër la xam nga mbër pour toog di wax. waaw mais mbër laa moo tax may waxu mbër. Ah, loolu waxu mbër la. waxu mbër moo tax ma koy wax xam ma tey. nekk mbër tax may wax mbër. bu leen dajee nii da ngeen dajante. su ma doon joueur damay prononcé. non waxuma loolu. non non mais attends. mais xam nga je suis taxaw comme bu leen dajee da ngeen dajante nii rek rombante mm-hmm. wax ay ñemew bu ma buñ dajee ñemew ma xool wala ñemewul wax ak xool wala buñ dajee amu soxla pour wax ak yow. mais di ko bàyyi xel xam naa. non non ban bàyyi xel kii ba ma bàyyi xel loolu tey nga naan ma bàyyi xel man képp ku nekk ci làmb bàyyi nga ma xel man dama judd rek të man damaa juddoo xool dama évolué voilà. ñaari combat laa mos seeraan te benn combat bi dafa fekk. benn combat moom man damaa judd rek xool yoon bu ma ak benn combat am fekk na ma Iba Mar moom bi muy paqueté waaj jël bu gaaw rek. waaw ma Pape Thiam lay wax. <laughs> Uh-huh. ñaari combat yooyu laa mos seeraan. Uh-huh. mais xam fii di wax saa ay onze combat. waay yooyu man ak moom bu suñu combat taxaw dugg ci géew doo xam ku am 10 combats booy li ma la kii bu ma laajul woon du ma wax samay combats yow man du ma sa morom. wala yow mënoo comprendre li ma la li ma la wax xam nga ñoo xam ah déglu ma fii déglu ma booy du cadre ay combats. mais kii ëpp waxee ma déglu amateur yi gënuñ ko xam ko li ma la wax yow man sama yow dama ko liggéey yow sax papa Modou Lo tax ñu xam la ci làmb. parce que doomu Modou da nga may ma pare li may wax. xam nga am na loo xam ne xel boo koy mootali. tey jii doomu mbër lan moo tax ñu xam ko ci làmb. magam Balla Gaye. mais Sadio Balla du ko fekk waaw da nga may déglu fi may waxee da nga fii boo fa duggee tak premier combat dañ naan doomu diw la war a raxut diw la. man aw ma benn mbokk buy bëree mais attends fii gis nga fii ku ñu fi ne doomu diw. waaw ci géew bi ñu yenn la ba ci kaw dóor ci suuf wala ñu dóor la nga wàcc. Eh, boo ñibbee boo xëyaatee kenn kenn du wax. doomu diw saay Ousseyn. waaw ah, diw de la ñuy wax waaw. man sama combat yëpp yëpp ñi ma bëreel ñëpp est ce que man a ñoom ñoo tolloo ñi ma bëreel ñëpp ma ëpp am na benn boy bu doon ànd ak Balla Gaye bi muy doog a dugg si làmb dañ doon wax boobu mu doon ànd ak Balla Gaye cooli cooli mhm. mais bu ñu ko dóoree mu daanu déggatoo ko non déggoo affaire yi man ma yoon man man sama yoonu làmb man sama yoonu làmb ñu naan la doomu mër la di la kii bu ma ci géew man sama yoonu làmb li fay li fay am man maa koy def du ma fekk di ma dóoree di ma dóoree du dar murloo man lay dara war na sëriñ Bamba moo fit billaahi wallaahi amoo fit. waxu mbër lay wax. waxu mbër laa moo tax ma waxu mbër. moo tax du ma la tontu. mbër laa non boo ma tontu rek damay firnde la nag maa ragal rek. waxu mbër ngay wax xëy. non parce que kii wax ji da koo jaaxal. non xam naa ne am fit nga taxaw naan ko amoo fit. loolu moo ko xaw a amul fit waaye baal booy ngay jàppale. amul fit non non non non non. léegi moom yaa am fit. fit bi leer naa lay wax nii yaa am fit. billaahi wallaahi. jëlal lépp non maa ko téye dama ko gérer de. ah maa mel laa ko téye. jëlal lépp bés bu ñu bëree bëree. barke alxuraanu karim bu nu waree bëri wóor na Serigne Touba Mbacke dama lay duma duma yu métti doog laa daan. sama kii laa góor nga jàkkaarloo moom nangu duma. yow man sa góor man sa góor daf maa leer nga naan ma ay sama moromu góor. yow rek maa mën a duma. yow lu ko raw sa papa mënuloo sax mën naa ko duma. yow bul dépassé. non non du dépassé mais ci làmb la nekk. mbëru Pikine néew ma sa papa ba jur. mu dëpp. waaw léegi le treize am na. waaw ah, le am na ah, li ma la wax li ma la xam nga pour làmb ji neex bëgguma ñu leen ñu daan leen waa pare nga naan dañoo feebaroon wala eh, dara. man ay waxu Modou nga eh. Modou kon man maa la fi indi. man maa la fi waaye doo ma may sama jàmm nga naa ma ñaanal ko jàmm muy doomu aadama. Ah, di doomu jàmbur nga naa may ñaanal jàmm mais man sama jàmm ñu xamuñu lu dul dugub ak soow nga naa may ñaanal ko jàmm doo rek la yow. ñu dugub ak soow kese lañ xam. nga naa may ñaanal ko jàmm Fall mais ñu jàmm wérul. noo mu màgget la xalaat ne affaire est-ce que jàppule waaye moo loolu dafa màgget <laughs> laa lay wax nii nga naa ma nii moom la di jeeg nga naan nii dara ndigam loolu yàqu ko la mu garaam yëpp tam na booy man du ma déggoo li ma la kii dafa bari wax li muy wax ni respect quoi wallahi du respect déggoo li ma la amul respect dara lamb amul respect kii bu jeexee jeex na Modou mu daje woon ak Modou mu xool ko xool bu ko neexul sax Modou booy Modou Lo mënulu ma tus barki maam Seera Fall billaahi wallaahi bu bis bu dof dof loolu loxoom jug si lay bàyyee làmb damay yàq carrière am billaahi wallaahi barki maam Seera Fall <laughs> mais nag kii da nga ko kii kii promoteur yi dañoo tëgg seen kaw. est-ce que yaa may dégg. ma kii damay toog di wax moom. waaw di bëggee waa Curuba nag di bëggee waa Kàmbaga Curuba ñëpp maa leen di bëggee booy man du sa morom. Ah, waaw ah, doo sa may wax billaahi dama lay duma. wax ma ci ay làmb ay combat yu fa réew non bu doon loolu du ma déplacé wu sama kër ñëw est-ce que comprendre nga bu baax. yow booy yow da ngay dem booy ba demee ba Yoof nga laaj ma sekkandaanal mi nga daan àndal nga ne est-ce que yaa ngi comprendre. moo ci ah, lay laajte nag. dama lay expliquer rek dama lay expliquer rek dama lay expliquer rek dama lay expliquer nga dama kaa soxla xamal kii dama koy dama koy rey kii dama koy rendi bandi mënoo koo bëgg a xam sinon boo xaritoog moom rek bëgg jàmm moo tax pour bu la nit bëggee def dara. Ousseyn man Baye Fall laa ñu du seen barki maam Seera Fall <laughs> fis góorgóorlu gis ngeen ni lay demee ci jàmbaarloo <laughs> <laughs> doo réglé nga naa ma wax booy man du ma sam moroom nga naa moo tax gënee fi di wax xam man bi may ñëw fi ma booy hee taxaw ma man de man du ma bay tëkkante ak yow taxaw ma la taxawu ma damay toog nga da nga ne am ay tëkkante man déglu ma fii ma la rek déglu ma man du ma du ma sam moroom bay tëkkante ak yow waaw ah, taxawal waaw yaa ngi dégg bu baax man du ma taxonte ak yow du ma sa morom. boo jëlee sama yow booy handicapé nga. Ah, gaana nga. jël wax rek lan ah, gaana li may xam na ko. ah handicapé la. ñu may xam na ko bu baax. gis ngeen mbokk yi ni lay demee ci jàmmaarloo woote waxtaan. c'est carrière lamb mais fi mu toll nii bu budul budul budul Boy Jules budul booy jeune ñoo ñoo nekk sa kanam man man waxuma budul booy jeune man mosuma sax toog ak sa manager daan ko ay booy jeune kii barki alxuraanu karim bàyyi ma ko bëgg commencé nga koo ma ko xel mais nii nii. nii commencé nga koo bëgg bu ñëwoon fii léegi ma ma <laughs> ko barki alxuraanu karim. nii nii moom commencé nga koo bëgg sax toog di wax ay waxam. mosuma sax xel mosul nekk moom bi amali problème ndax bëgg naa bëri ñu ko ëpp coow man baam ñaar dëgg la

boo yoon bi daa bëri xaaxaan de barki maam Serapha te bu ci takk sa tànk yi du dañ. barki alxuraan karim su fekkoon lu yomb rek moo tax muy kii saa yi. booy yow sa ko bàyyi passé lu yomb lañ la utal moo tax. ah léegi léegi lu yomb lañ ma utal mais barki alxuraan. booy bëgguma ko mbaa bu yomb yow. léegi yow moom doo yomb léegi jël ma yow. booy yow doo lu yomb. <laughs> booy yow bu bëri xaaxaan léegi mu jëlee ma leen ne eh, booy yow booy mënoo ma laal fenn. wallaahi man mënoo ma laal fenn. mag yow bu desoon dara lu dul bëre li nekk ci géej bu mag yow li ma ko def lu ko raw laa lay. yow ma mën yow wax bii ngay wax nii ak ngay def nii. bu arbitre waxee bu fi amee ins bi yaa ko. Hmm. bu taxawoon tey ji arbitre soufflé. Hmm. waroo sëriñ Bamba doo puus doo paas lépp lu ma bëgg loolu ngay def hmm. papa ak doom la du ma sa morom ci lenn yee jéem a la xool leneen nag nga liggéey. non toog fii di wax dafa yomb xam nga kii toog naan ma ay man lépp loo lépp lu ma am ci làmb ah fulla ak fayda moo ma ko may. ak jëf mais lépp loo dégg ñu ne am. est-ce que yaa ngi dégg ak fayda moo ma ko may ak del wax rek. ngay nekk fii di transiter wax rek maa ngi dugg ci àll bi di mbopat. bu ñu dajee ci àll bi warul sëriñ ci wala ma lay ci billaahi wallaahi léegi xam nuy def dinañ dajee. léegi bu ngeen da da ngeen naan non non non ñooñu ñooñu mën na am làmb. côté yooyu noonu ay marfa foko yooyu mën na am làmb. comprendre nga ay yéen dafa lànk rek côté yooyu noonu lu ëpp lu muy dem noonu li may xam naa ko. Eh, man fépp laay dem di léegi li problème bi mooy. man su ma xasee bu léegi waaw léegi bu faata bu faata tëggee faata production bu tëggee. ci faata production. nii xam nga li muy tëgg bari na. Ah. bu tëggee ngir jëm Serigne Bamba

wóor na Serigne Bamba. maa la gën a métti foofu. mais mais bu ma jógee ci loolu damay ñëw. wàllu man ay teg der ngeen teg der loolu du ci man de. <laughs> yow damay da nga neex yow del wax rek. gars yi dañ leen wax moom ay wax rek. non du cadre bëgg de mais booy yi dañoo yarul. wóor na Serigne Bamba. xam nga loolu moom loolu damaa nekk ci ginnaaw ay damaa nekk ci ginnaaw Modou Lo moo tax ñuy yara di ko yara di ko booy yaru leen. loolu loolu yaruñu barki Serigne Bamba wa moo koy wax. mais wàllum entraînement fan nga ci ak ñaata séance ngay léegi léegi si suba gi rek def naa ñaar. suba gi léegi quatre heures du matin laa yeewu dem entraînement yaa ma yeede ah. ok ma wax bal bi daa diis non yeewoo guma ñaari dem naa géej dem saal ma damay travail damay liggéey parce que damaa xam lu ma war. ngoon gi nga dem contact. voilà man bu ma woon ci làmb sax bu ma xëyee damay liggéey parce que dama xam loo xam ne nii moo ma war comprendre nga ñun ñëpp ay jeunes lañ ku ci nekk da ngay ñaan yàlla xama dimbali say waajur dimbali ñi nekk sa ginnaaw parce que du say waajur rek ñoo yaakaar ci yow am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi yaakaar ci mais budul budul Ameth ñan ñoo nekk sa kanam. waaw ñi fi nekk bari nañ au passage di bëggee waale waa Ngéwal bu baax a baax di leen siyaar bu wér a bëri ku ci mel ni sama yaay Mbène Ndiaye jël nuyoo bi te ko ci ci loxom ñoom faatu Fatou Mbaye ñoom Tabara ñëpp ñoom Cheikh Mbaye Aline Diko Père Bamba ñëpp maa leen di siyaar bu baax a baax ndey xujo ñëpp comprendre nga yaxub maa ngi bëggee waa Ngéwal bu baax. ñu nekk sama kanam bari nañ amaana ñoom ñooy puus sama kanam rek mais bari nañ. ñoom ñooy puus. waaw dañuy taxaw sama kanam mais bu ma waree jaar ñoom ñëppay puus fourrière daa puus dem toog yaraax caat daaw faal dafa daw Nokia dafa daw bébé ama bi doon bëre dafa daw est-ce que comprends nga kaagur na yow déggante nga moom xam nga li la wax. Mm-hmm. Eh, kon am na loo xam ne jarul sax ñu fi nekk di wax ko waxaat booy ñu ñëw ñu bëre. comprends nga man. maa ngi fi maa ngi fi fi pour. moo wala moo bëgg tëgg sa combat mais ki moom. voilà maa ngi pour pour man yi mooy woo bari nañ sont nombreuses bari nañ. trop li ma lay ñaan mooy promoteur bu la woo ne ko dama woo Amet Amet Lo. kalti promoteur bu la woon ne la sa combat ne ko wol ma. Amet Lo mais ñoom. parce que kii hmm. non non parce que bu fekkee bu fekkee promoteur yi. mbër bu saf làmb wax ji moo fi nekk nii rek mais kii boo seetee woon ne ko jël sama jël <laughs> wallaahi jël wax ji wax ji eh, wax dëgg nag du jël la wax parce que moom dafa metti waaw dafa metti waaye man lu nooy laay wër de est que du ma dem ci lu nooy la comme que dafa metti booy booy man damay nokku mag waxatuma la xale waaw kay leer laa lay wax wàllum kii xam nga kala kii déggoo ne ma la kii laay laa koy jox bu kër mbay wàll. ma jox ko soq de bul fi wutal kenn adversaire waaw wax rek. bu ñaanal soq laay brusil laay brusil ñaanal soq bu mag laay brusil daa daanu kaw fi la ñëw combat bi ma. waaw li may ñaan nii wax ma laay brusil boobu wax ma laay brusil boobu numéro deux laa la wax. numéro deux de victoire di ñaanal soq. sama fils sama gaan di ko ñaanal ndam. combat moom moom faral yéen foofu dinaa wax yéen lamb ko bëgg a def Pikine Parcelles yéen làmb ji. làmb moom. làmb ko bëgg a def Pikine Parcelles. tey ji dama tey ji dama lay wax leen dama lay wax leen hmm. Sénégal bu fekkoon Dakar la tudd Pikine mooy nekk. capital capital bi. li ma lay xam nga ko. Parcelles lay nekk deuxième capital. est-ce que xamal yow est-ce que xamal. mais fi mu toll yow Pikine sax a gën a siiw Dakar. Pikine moo gën a siiw Dakar. <laughs> wàllum entraînement naka ngay entraîner. Ah parce que gis nañu gis nañu soo amee combat euh, yokk bi wala boog euh, ni ngay développer. macha allah day day day jaaxal ñu ci ba ñu ci bëri nee dafay force sax du yokk poids am ndax taay bi euh, mënoon na entraîné ba ci kanam. non man yokk poids boobu man du ma ci sax bàyyi xel man damay jékki-jékki rek raar raar laay peese wu mun naa jékki-jékki nii rek gis peese mu yéeg ci peese wu xool xam ñaata kilo laa nekk mais damay entraîné normal ñaata kilo nga. xaw ma ñaata kilo laa rek gis naa peese wu. li nga mujjee peese wu ñaata kilo 93. 93. yooyu wax dëgg boobu beeku 10 heures nag mën a nekk ay 105. yooyu du ma ci boobu day prendre 50 kilos kii. su ma amee combat damay def 3 séances wala 2 séances printemps damay def 3 séances. nii nii ñaar séances ngeen nii nii nii 2 séances mu lay woo defe naa ne entraînement nga jógee. Ah, entraînement laa jógee kay damaa demoon boxe su ma ngoon ma ah, man dañ ma inscrire damay dem di entraîner rek dañ maa inscrire saa la lépp dañ dañ ma naan demal rek ma dem. Mhm. su ma amee combat nag damay def 3 séances su ma combat bi passé sama gars yi sax suma grand yi may jàppale seen am na <coughs> day def des sciences da sinon da ngay sonn di expliquer nga bàyyi di def des sciences mais dama yeewu fajar dem jël ñëw tëdd ba 10 heures ma dem saal ngoon ma dem contact mais am na yoon tamit sax taxaw fii di ko wax sax mooy loolu du sax mais heure musumee koo ci géew dinañ xam ne kii foofu. boo amee kàddu yu mujj. nga tàggatoo santaale gërëm. <coughs> waaw yow di la bëggee bu baax ndax yow borom baax nga quoi ndax yaa ngi doxal yaa ngi doxal affaire yi macha allah quoi. di la ñaanal rek yàlla defal la sutura. amiin amiin ñu bokk di bëggee sama waa gàlle yëpp xam nga ñoom fàttali ne xam nga sama maam sama hmm. ah, loo ko wax ma woo sama papa. lu ma bëgg rek man loolu loolu la may defal quoi. di sant aussi tamit sama yaay bu baax a baax di ko gërëm. ak suñu waa kër Tëngéej sama tante yi ñëpp xam nga ak sama mag yi nekk extérieur ku ci mel ni Bunaama xam nga ku ci mel ni Isaakan. Hmm. Eh, du bëggee sama mag yi nekk foofu noonu yëpp du bëggee waa ñoo jor bu baax a baax a baax. bëggee suñu waa kër parcelle bu baax di bëggee sama gaay may àndal ku ci mel ni Papa Let Sadio Mané xam nga ak Youssou Gueye ak sama ndijaay El Hadj ak Jandal Mara ak sama yaay Soufia xam nga ñoom Amar Ndiaye Louga waaw di bëggee sama gaay yëpp ñoom Medoune xam nga di bëggee waa 10 yëpp waa 10 doole di bëggee waa parcelle 1 ba 26 yëpp waaw di di bëggee ñëpp daal mu limee mooy juumal mu matal mais maa ngi bëggee ñëpp di siyaar ñëpp di bëggee gaay yi nekk yëpp di ko bëggee moom bu baax. waaw di santaat yàlla bu baax ah. dégg na la moom waaw waaw di santaat yàlla bu baax di ko jaajëfal xam nga waaw champion la ndaanaan la di la bëggee yow hmm. di bëggee cameraman yi ñi ma àndal aada. comprendre que Sëriñ jooja bàyyi ma sëy maa ngi koy siyaar bu baax a baax waaw. di bëggee sama doom ci moor di ñaanal ñëpp jàmm ko ci mel ni Assane comprendre nga Assane maa ngi koy bëggee bu baax Assane tatouage Sëriñ Ndiaye. waaw maa ngi koy bëggee di siyaar Marème bu Sëñ Fallou Marème bu Sëñ Fallou ñu ngi lay siyaar yow loo tegul ci bopp rek naa yesul waa yow sa sa jàmm yàgg waa marché zinc ah boucher yëpp maa leen di bëggee waa Seras waa Camber ñëpp est ce que comprendre nga di bëggee ñëpp waa Marfa foofu maa leen di siyaar waa yéen ñangal comprendre nga sama mag bi nekk foofu kooku sama lonko la kooku sama sama lépp la. di bëggee teg kon déggee nañ koo xamal di bëggee waa Waalo gépp nomba alar ba nomba naanaa ñëpp waa Sénégal ñëpp maa leen di bu baax sama dëkk. waa mbal comprendre nga di ñaanalaat am Baldé ndam bu wër waa ndam bu wër maa gën a bëgg combat bi moom di ko ñaanal bu baax a baax sunu borom ah, dafa ko gën a bëgg combat di ko ñaanal ndam bu baax a baax a baax ñaanal sooku képp koo xam ne yaay Pikine rek am combat ñu ngi lay ñaanal ndam di bëggee waat ñëpp di siyaara sama papa Zil Baldé di ko ñaanal gudd fan ak wër ak tawféex di ñaanal Pakola dimanche lay bëre yàlla ko sunu borom defal jàmm defal ko ndam lu wér ak sekk Ndaanaan borom yoof ñu ngi koy bëggee bu baax a baax waa Pikine di sant suma yaay nag di ko santaat bu baax di ko santaat bu baax di ko wax yaay booy man aw ma ku yow man sa doom laa yow dong laa am moom ma yar ba ma màgg gisuma yaay gisuma baay moom laa xam moom mooy moom laa wax yaay ak ñi ciy jàpp comprendre nga ku ci mel ni Jili Fallou comprendre nga ñoom ñoom ñoom Diouf ñoom ñëpp ñoom As Mbaye gaa yëpp sama grand Fallou mi nekk Italie sama mag bu ma bokkal ndey ak baay Jibi mi nekk euh, France jabaram mami maa ngi koy bëggee bu baax sama rax bu ma bokkal ndey ak baay Mansour sama waa kër ñëpp sama waa koñ maire yeeg ñëpp nga xam ne maire dañuy dajal deux cent deux cent di ma ko jox ndekki sama sama koñ ba nii. kon am nga sas. maa ngi leen bëggee bu baax a baax non laa mujj c'est laa mujj nii dañoo nee na dóor mu daan luñ bëgg te c'est que yónneewu ma ko bi. maa ngi bëggee waat ñëpp nag di siyaaral ñëpp sama waa ko ñépp maa ngi leen di siyaaral bu wér di bëggee waa Pikine di wax jaa ngeen jëf jaa ngeen ah, maa ngi bëggee tamit sama mag waa Cheikh bu dëkk Tëngéej di ko bëggee bu baax moom ak ah, soxna boo boo limee doo matal waaw di bëggee tamit Matick waa soxnaam di bëggee dawal ko sari di nekk parcelle yëpp eh, ku naan Aliou Kor maa lay bëggee di bëggee ñëpp di bëggee waa Mbayar gi ñëpp waaw di bëggee ñëpp waa parcelle yëpp di bëggee Mas Gamien bu baax bu baax mm, bëggee waat sama papa bu baax ak El ak Jandal Mara ak sama yaay Sofia ak Papa Lett xam nga maa ngi leen di gërëm di leen jëfal ndax woo lañ ngeen ñëw mënoon naa ci daj ay coono mais euh, gis naa ni ngeen ma ko yombalee kontaan naa ci yéen bu baax a baax ndax damay dégg olof di wax naa ñu bokk teen ñooy laxasooy goj waaye kontaan naa ci yéen goj yi moom yàlla na laxasoo gën a takk bu baax a baax. ndax bu ñu hmm. xëccee rek lépp gënoondoo maa ngi gërëm ñaar Ibrahima yi Ibrahima Khalil ah Adama maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. xalifa bi. waaw mooy ak série Buzz Ah, di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon wasaare làmb beneen jàmmaarloo jaa ngi jëf